Pikine Kër Massar Thiès Louga Saint-Louis Kaolack Ziguinchor mën ngeen a jokkoo ak ñun ci 33 859 70 70 wala ci sunu site internet www.c3s.sn aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi arrahmaani arrahim wasalaatu wasalaamu ala man la nabiya baadahu sayidina wa mawlana muhammadin al amin wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi mbokk yi baaxoo di ànd ak Tawfekh Production ñoo ngi fii ci Touba ci wàccaayu màggal gu mag gi di fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar di bi nga xam ne ci la sëriñ Touba Xaadimu Rasuul euh, xëye woon Mbàkke Baari euh, dem jeewal jàll Ndar ba na mu wéyee Ndakaaru di bu tedd bu rëy ci lislaam di bis boo xam ne bisu fàttaliku la ana lan lañ ciy fàttaliku euh, sëriñ bi ci jëmmi boppam wax na xaraju yowma sabti thamina achar li xidmatil muxtaari fii chahri safar waaye muy bis boo xam ne nag da cee génn ah ngir liggéeyali ji yonente bi alayhi salaatu wassalaam muy xéewal gu yaatoo yaatoo yaatu ci umma islamiye gépp waaye bis boobu nag euh, buñ ko dee waajal ay ay worma yu mu laaj am na ay melo ak ay jikko yoo xam ne nit ñi nga xam ne ñoom ñooy waajal bis boobu war nañ koo melowoo jikkoo ko bokk na ci tey dañuy joxe ab yóbbal boo xam ne dafay jëm a ah, ci ñi nga xam ne ah, dañuy bàyyeekoo fu ne ci àdduna bi di ñëw Touba fas yéenee màggal si wuy si woote bu tedd bi nga xam ne Cheikh Mahamadul Fadal moom moo ko woote woon fii ci Touba ñëpp daje fi mu nekk lu am am solo ci yoonu murit ah ñuy fàttali nit ñi di leen wax ne dëkk bii di Touba sëriñ bi bi mu koy sanc dafa am lu mu ñaan boromam wax ko na ko dafa am li mu bëgg dëkk bi mel ko daf koo ñaan boromam te boromam defal na ko ad'uuka an taj'alahu daara tuqaa wal ilmi wa diini wa daara irtiqaa wax na yow suñu borom defal dëkk bii di tuubaa mu nekk dëkkub ragal yàlla mu nekk dëkkub xam-xam mu nekk dëkkub diine dëkkub xam-xam nag ak dëkkub ragal yàlla ak dëkkub diine bu fa ab jullit dee dem ah, di wuyu si ah, Serigne Touba Xaadim Rasoul war nga melowoo melo yi nga xam ne moom la diine ak lislaam fonk suñ Touba eh, léppam ci sunna rek la ko la ko la ko tër ah, woote wut lenn loo xam ne dafay wuute ak sunna kon na kuy wuyu si war ngaa xool sa bopp xoolaat say sa saw doxalin